j'ai phobie par ouais. ah phobie ok ok phobie. Oui, on parle d'abord des phobies eh, eh ñu ñu ñu leen di jël ñu fàttaliwaat leen ku dugg léegi di nga am 20 000 ah 88 628 euh, ak yi ci topp noonu ah mu ngi nii. Euh, waaw nii la féete sax voilà la leen la nii ah les numéros sont là. ici là là là là là là mu ngi mu ngi nii ah a ngi koy gis noonu alors phobie tu sais man dama dama am fit nitu dénk laa. Mm. nitu weñ ah, waaw nitu la sax maa mu dénk dama mm-hmm. xaw a dama xaw a dërkiis un tout petit peu euh, donc phobie bi sama lan la sax waay sama phobie lan la sax euh, euh, dama ragal nit mm-hmm. ah voilà alors quand je marche seul j'ai l'impression que tout le monde me regarde si si si si si si mm-hmm. Euh, peut-être que neexul a gëm ah, ak sa wala bin bu réer mais c'est vrai j'ai l'impression que par exemple quand j'entre ci ay grandes surfaces mhm. je pense que c'est une phobie c'est une peur c'est une peur c'est que là-bas c'est la peur nit du sax génn ci këram en fait voilà donc man sama bopp kon xam naa moo gën a sedd mais quand je quand je par exemple ci grande surface écoute euh, il m'arrive de prendre mon téléphone sans parler à kenn parce que j'ai peur hein euh, voilà voilà voilà, ci yow pour yow dañ lay xool voilà voilà souvent souvent peur ah je pense que c'est une phobie ça. oui c'est une peur ah oui ça s'apparente peu à l'agoraphobie mais moo gën a sedd. moo gën a sedd parce ah, que ñi am loolu dañuy dañuy dañuy mun nañ toog du ñu génn. génn yow léegi lan mooy sa phobie yow. Euh, Malick Seck man j'en ai deux. yoo xamante ne du ma leen laal du ma leen muy unku. Ah, naa fi indi unk sa kanam gu ndaw gi sax da ngaa xaw a nuroo ah, unk unk di tabaski sama yaay jox ma ma yóbbu yàpp xam nga ci kër yi rek. ndeysaan. Eh, mais mais doguma la xam ni ñu waxee unk ci français. salamandre. oui la salamandre. mais mënoon nga noppi parce que man xaw ma oon. oh là wax nga <laughs> dëgg de ah. ah unk salamandre la ñuy wax. salamandre d' accord salamandre donc. Euh, émission bi jigéen ci kaw rek daanu sama bopp. salaamu xaw la ah, dans les pommes. aïe aïe aïe. beneen dama tëdd guddi di nelaw ko fekk dama demoon ci village yi. Mhm. tourné ma tëdd si yàgg. dañ yeewul am nekk ci néeg bi Pape Cheikh. mu xippi yem ci. te dañuy dijji nag dama sama yaram bi ay picc lay def. suuf ay waaw donc ko ragal trop ah. dama ko ragal Pape Cheikh. ay palanteer bi laa jaar ay palanteer eh, bi beneen bi beneen bi mbóot. nañ dem jëndi jëndi unk. da nga ragal mbóot tamit mbóot. kaay mel mboot bi si fort dama demoon di Thiès. Hmm. Hmm, Thiès Thiès moom mooy ngay dem di lavat quoi. ayee ah, di toog ci digg sànni. bon nañu tey uppukaay yi ah. tey leen armé armé armé seen ay uppukaay waa armé leen seen ay uppukaay. alors ci digg leen seen uppukaay yi. waaw toog ci diggi saal bi. lii ah. de jar na bañ a waxati. Ah. ñoom ñu ngi reer ne waaw ñu ne ñu pare. ba tey loolu mën naa ne. ba ci yàgg rek mbóot bi. Ah. ndeke xam nga mbóot dañuy ñëw sournois. waaw saa rek yéeg sama dàll dugg nag ci biir pantalon. yii loolu yee tuuti ngelaw ci egg. Eh, nañ ko upp maa ngi ñëw de. jaar ci suuf ci baax ginaar gi ginaar gi taxaw na de luy luy xoyom xoyom. Pape Cheikh déglu rek ma ñëw. eh fii boo fii boo nee déglu Pape Cheikh ba njëkk si yàgg sa ne am na luy yéeg. Hmm. ma xaw a def nii quoi tàpp nii. Hmm. xam boo ko xawee tiital nii day ah. accéléré. léegi ah, ah. gën a gaaw Pape Cheikh nga mu leer. ah dafa yéeg ba ci kaw. <laughs> dama yéeg Pape Cheikh. <laughs> déglu ma ci biir kër gi dàll bi la. Pape Cheikh. mbot bi kon ci pooj yi la yem. si pooj yi la yem fii nii ma téye nii rek ni <laughs> ma ko téye nii. ma téye rek jóg taxaw rek biif tubaab bi nekk bi may biif caleçon ma toppaale na ca. ah Cheikh man daal li ma dufee rek. yëngu si yàgg xool gëstu gis waa kër gi ne waaye lu xew. ma soxlaa dara sama tuuma. génn dem ñibbi. booba laa fa géej. <laughs> Ah, wallaay man ngelaw ci ex. yaa ngi defal sa wantaay. kër gi ñu may seetaan xam nañ ban kër li cité port ci derrière la pharmacie foofu laa yor. aywaay eh, eh. foofu laa fa meene. la dafa ragal unk ak mbóot. Eh, yow tu sais que mbóot sama petit frère temps yi nekkee xale la tooñee doo ko dóor de ban bi ngay jël fëgg ko si tànk papi. <laughs> ndax la dafa <laughs> yow léegi lan mooy yow bisu. man vert. vers la sax vers mooy sax ah, su ma ko gisee fenn mun naa toog un an duma fa jaarat parce que mus naa ko gis suñu kër dama yuuxu ba waa kër gi ñëpp ñëw di ma laaj lan moo xew. mais ma leen waxee lan la sama papa mu ne ma wàccal. <laughs> <laughs> mais j'ai la phobie de ça ak comment ça s'appelle euh, tey damay fàtte sama mooy parking. parking oto yi di garé. ah su su guddee mu lëndëm non non parking man su ma fa duggee tu sais quand tu regardes trop de films. j'ai tout le temps l'impression que dina am kenn ku génn xoj ma. <laughs> non mais parking nu ma ko ragalee tout le temps dans les dans les parkings si film yi et finalement man dama des sama <laughs> parking. problème eh, nga problème. Eh, eh, aw ma problème sax kii wérul mais tonton Mag fu mu yëm du ma ko wax ci télé bi. wax waay ngir yàlla ngir yàlla. may nit yi rek. <laughs> ka dama koy dee sama gars yi parce que c'est un truc qu'on n'a pas à dire à la télé. wuy <laughs> <laughs> tabaday. allez ah. ma kii nekk ça. waaw jàpp kon kon tuuti ngelaw ci tonton Baka il est derrière tuuti ngelaw euh, Zeyna Zeyna s'il te plaît est-ce que tu peux apparaître à un moment balaa ñu jàll ci météo bi comme ça nga uppal ñu nga uppal ñu tonton Baka ci régie bi. ginaar gi ree ko tuuti may ko ginaar waaw ah, euh, voilà euh, tuuti ngelaw ci tonton Baka merci Zeyna uppal ñu ko uppal uppal Pape Samba ëppale uppal Diouf uppal. boye boye boy. uppal Pape Samba <laughs> ëppal. uppal. ndaw ngelaw gu bëri xale bu sape ko. ah. bëggul wane boppam zappé na ko génne na ko. ah na ko ah mais mais mais dis-moi est-ce que est-ce que les internautes ils réagissent par rapport ak euh, phobie yi ah. ils réagissent kay instant bi naa si quelques. quelques euh, on peut on peut les savoir mën nañu ko xam. Euh, peut-être Sall Aïssatou Dieng nee na comme exay dex sans ah, moom unk rek la ragal ci. <laughs> Mami Dioum Gomez nee na elle elle a peur de rester seule seule chez elle. ah wéetaay la ragal ko moom. waaw ok. Milena na moom géej ak plage. la mer ah, mais xanaa kon tàngaay bi nii mu ñëwee nii moom du dem euh, sorti kooku kay du dem fenn. <laughs> <laughs> Matou Camara nee na avion. comment avion avion ah xanaa moom du tukki. kii kay du tukki. bëri na c'est vrai que bëri na ñu am phobie wu avion c'est vrai c'est vrai Ndeye Fatou nee na quand je dors la nuit mu tàng ak mu sedd damay muur sama kanam je sens que dafa am ku may tiim aïe aïe aïe aïe ah, waaw ragala ragala wa wa wa tu sens une présence en fait uh-huh. moo tax man du ma nelaw ci lëndëm jamais ok toi aussi tu as ah, peur de ça d'accord et quoi ah, d'autre Atou Ndiaye nee na moom melax ak dënnu la ragal Ah, kon moom euh, nawet bi dina am soxla ah. <laughs> et toi. dung dung dung yii man sama boss dafa bizarre ba nga xamante ne fu ma ko wax dañ ma naan non mais attends il est folle quoi. mais <laughs> vas-y euh, ex seede na ko. guro guro. guro guro. kola. duma ko laal duma ko jege. duma ko soo ma ko laalalee sax mën naa la rey. xanaa lekkoo ci sa guro takk. <laughs> du ma ko sax laal ba di ko lekk. sa jëkkër daf daf la nëbb guro gi xanaa. du ma ko du bu ko moom sax xam na ne. du ma ko jege nuñ koy ragalee. je sais pas. c'est quoi lan nga ci ragal forme bi ou quoi. du ma je je supporte pas. même sama maam bi ma nekkee xale su ma yónnee guro damay jooy dafay obligé jox ma mouchoir. wala wala wala mbuus. ma def ko sérieux bon écoute euh, voilà ça arrive man man ragalu ma unku ah man ragalu ma unku voilà euh, te ragal nga ko c'est ça ku nekk ak li nga ak li nga ragal. c'est ça c'est bizarre ah. c'est très bizarre su ma laalee dama koy raxas automatiquement fu ma laal. xam naa ki la ki la ki la ki la liggéey daf ko sànni ci guro. Eh, dégg nga da ci guro. depuis bi ma nekkee xale. ah là là. Voilà. donc demain je promets Damba Guro ci plateau bi ah. Paanu Gunóor. allez sérieux ak Unku suñu waa kër suñu amoon numéro dañ la wone le Pape Cheikh bu ko def. Eh, je vais transformer le plateau en parking demain. <laughs> voilà ah, à tout à l'heure ma puce euh, dis-moi yow tamit lan mooy sa euh, lan mooy sa phobie ñemew ma wundu mooy muus ok ñemew ma muus muus waaw mais li ma gën a ragal vraiment phobie bi ma am mooy hauteur man man mënuma ah lu kawe quoi ah kon yow kon yow doo doo tabax ba ca kaw. déedéet defar ba mu baax ah moom bu ñu tabaxee duma ma yëg. ca kaw non non mën nañ tabax mais man du yéeg yëg. kon tabax ba ca kaw dëkk ci suuf lu ci kaw fi ma dëkk dëkk naa fa depuis. Mhm. mais mosuma yëg ca kaw dama ko ragal. kooku moom dem gëm naa bu may tiim def nii kon. da ngay wax et toi Kiara. Mm. moi c'est les avions. Comme ah, tu as peur de Mais comment Mais tu as fait pour venir jusqu'ici ah, Moi, je voyage beaucoup. Je déteste ça. À chaque fois, je me dis, est-ce que je vais prendre ce jour-là ou ce jour-là parce qu'on ne sait jamais si ça va tomber. Aïe, aïe, je suis une des, des passagères les pires hein, dans l'avion. Donc, si quelqu'un est à côté avec moi, il va souffrir. Une fois, j'étais en train de oui, venir d'Italie jusqu'au Maroc. Ouais. Et il y avait un peu de, de turbulence. De turbulence. Ouais. Donc, moi, là, je panique grave. Et il y avait à côté de moi une Ivorienne. Oh là là. <laughs> Une Ivorienne, elle sort la Bible. Elle commence à prier. <laughs> Et <laughs> moi, je dis non. Et ce jour-là, je maudis le Sénégal. Je dis non, pourquoi je vais aller au Sénégal Ma mère, elle m'a dit, il faut rester chez soi. <laughs> avec la dame qui priait avec la Bible. <laughs> J'avais peur quand même. Ah, c'est vrai. On voit un embarquement immédiat. je suis comme ça. <laughs> jusqu'à l'arrivée bon en tout cas ku nekk ak li nga ragal euh, euh, yenn saa yi nga dégg nit ragal dara après nga jaaxle quoi. mais mousse par exemple man sama euh, meilleur ami soo bëggee mu bañ a génn tegal fii mousse boo ko fa tegee un an du génn du génn <laughs> dafa ragal mousse te man je comprends pas mousse day gis nit yi di ko jàpp di ko Euh, en tout cas yal nañu yàlla musal ci lu ñu ragal c'est ça ah. ku nekk ak sa euh, phobie 7h59 dans quelques wala dans quelques secondes c'est ça. dans de secondes jot ñu ngi ñëw jàll ci météo bi anatendant ñu jël suñu benn xarit bu nekk ci téléphone bi comme ça ñu xool lu ñu koy may léegi.